naa sangu de ñëw ba léegi benn laa fi sangu xam ma jóg yëpp këpp ñu bokk balaa kii nga yeewu sax man waaw tudd la jàpp Amérique neex na ba may nekk xam nga ne may nekk Sénégal lii amu ko woon de nelaw bu heure bu ma neex nii ma nekk Sénégal moom du fi yàlla amu ko woon moom dem sangu ci dama daan gis bay đi chạy, bay đi, thì öyle beyni kutil sang một tay bắt nhấp không nên sang vào đây đi nè đang vào trong cột phía, và thao đẹp sắc mình phi không có được mình kinh phi ít phi được gum gum đấy phi kinh gum gum phải chơi quăng mình phải ít chơi. rồi fii xaw ma fi dara xam jéem rek de. Hey Canada, ah, hey, don't you know, don't you know, hey Canada, did you come over there? You know what's up, hey. I had done it. Come on, I had I had been to pick up. I thought I'm here. All right, just keep on. All right. booy ma kan lu mu defati moom daal nii rek lañ koy bàyyi tooxu joona tooxu joona rek muy yuuxu nii rek xaaral ma xool ko xam muy def seet booy yow lan la looy yóbbu kanaa xaw ma damay dëkkal ay nit nekk fi di yow yow sa dellu senegal yow jot na nga nekk fi di yuux rek lan la. waaw yow ça va yow yow yow ba mu yow expliqué ko ne ma douche bi ne ma na ci am na ndox na mu tàkk expliqué ko ba pare ne fii naa ma ka wax yu dem Sénégal man gis naa ne di kon yow kon ndox mu tàkk bi moo moo war a sa yuuxu yu metti loolu baax na si yow. boo booy sangu rek nii rek ngay def tooxuy doon yow toujours toujours rek si tooxuy doon ngay dëkk yow. ah na ngay dem Sénégal man loolu moo ci gënoo sax bàyyi man ma yóbbaaleel man man suba laay dem waaye ñoom ab avant loolu ñoom ma ma wan la dégg nga bu léegi nga xam. ma bari de dama rey si ndaw ba pare nii. wakano wonno ko nega sa ngama delloo sénégal ñoon wonno xoolal lii dafa yomb bi bëgg dee boo ñëwee fii mooy ndox mu sedd mais yow mais yow léegi yaa ngi xam ne affaire dafa yomb na non wuy ma non wuy ma non wuy ma da xool may dulu may dulu yaa ngi xam ne dafa yomb na boo ñëwee expliqué ma ko wax ba tey ji nga fi di yam la yoon ni kamam nga waaw kañ ngay noppi dafa kañ nga noppi yow gisoo ndox mu sedd bi fii la mooy commencement bi ndox mu sedd mooy. boo ko soññu bi déglu rek waaye defuñu si ay numéro booy soo boo koy soo di taal ndox mu sedd lay doon. après nga nga yéeg ci kaw moom mu a yéeg ci kaw mooy ndox mu tàng mooy yow xam naa da ngaa jël rek jëm ñu rek ci daal koy yëkkati da ngay ëppalee. waaw boo légee boo ngi nii ndox mu sedd maa ngi nii ndox mu tàng maa mu ci ah, kaw ndox mu tàng maa ngi nii ok ok. waaw yow lii lii rek bu boo ma ko waroon boo ma ko waxoon ba léegi wan naa waaye da ngaa ëppal. non c'est non de amul doon. léegi da nga ñëw ba léegi benn yoon nga sax ko bu ñëw ba léegi amul ay benn yoon